dëkkandoo xarit am di jàmm ba ci naataango ñëpp génn naqarlu tey gi nga xam ne jàpp nañ ko Modou Ndiaye mii nga xam ne doomu Bambey la Maimouna Sarr yëkkati ci ay kàddu. waaye yaakaar na ak message bi ñuy lancé fii nii tey jii bu ñu ko déggee dinañ jóg ndax nag ku fi Modou Ndiaye amalul njariñ amul ku fi Modou Ndiaye dafa fajalu soxla amul ku fi Modou Ndiaye defalul loo xamante ne nii keneen waroon na la kaa defal mu defal la ko amul. tey jii nag ñii fi dajaloon nii tey jii nekkul ne dañuy defal moo Modou Ndiaye loo xam ne moom la ñu def mais dañuy rendre la monnaie à sa que bañ soxlaa ñu jóg bam Bambey soxlaa ku ko jugal Modou Ndiaye da daan jug ju taxaw ci turu Bambey te ñi ko jàppalu tey jii nii yàgg na leen a doxal ay soxla. ñoom ñii di ay naataango jàngalekatam nag nee na nañu bàyyi moo Modou Ndiaye balaa ñoo jàll ci beneen anam. mais nag bu ñu demee ba ci réew mi jàngalekat mënatul wax xalaatam mënatul wone fi mu féete mënatul. exprimer son opinion je dis que ça devient dangereux dañuy sàkku ñu libérer ko ci lu mu gën a gaaw ndax moment bi kooram jàngalekat yi ak syndicalistes yi ak mbokkam yi ñoo ci nekk mais dañu bëgg ñu libérer ko lu mu gën a gaaw sinon toute la ville de Bambey mën na jóg comme un seul homme pour xeexal Mamadou Ndiaye te kon dañuy dugg ci beneen phase bu ñu sañoon dañ koy bàyyi ca ba muy teel. Dame Mbodj mi le ne du Ndiaye mii ab jàngalekat la mos sa nekk ab journal. Mamadou Ndiaye deful lu ñuy tere parce que appel à l'insurrection bu fekkente ni moom li muy liggéey loolu lañ tuddee appel à l'insurrection mooy jox xalaatam ci réew mi ak jàllale loo xam ne sax du moom moo ko créé da koy gis ci benn euh, médium mu jàllale ko ci euh, euh, jumtuwaayam moom mais loolu ñun ñëpp moom la ñuy def ku ci nekk da ngay jot ay ay information di ko partager mais amul dara lu mu lu xew ca mbaddaxun mu yëg ko daa di koy jël partagé ko ci page am ñëpp di ko partagé nga singali ko moom ni ko yow li ngay def waroo koo def parce que loolu appel à l' insurrection la te du moom moo ko wax kooku mënuñu ko appel à l' insurrection Mamadou Ndiaye defu ko beneen bi mooy li ñuy wax ni day def beneen liggéey bu bokkul ak liggéeyu jàngalekat parce que am na page Facebook ak di wax ci YouTube moo ko lal parce que Sénégal gépp a ngi koy def ministre ya ngi koy def président de la république koy def ñun ñii ñoo ngi koy def man am na sama page Facebook am naa sama tweet euh, sama sama page Twitter am naa sama sama chaîne YouTube te bés bu nekk ñëpp nga may gis may jox sama xalaat ci réew mi lu tax woowuñu ma te jàngalekat laa lu tax woowuñu ma ne ma Dame Mbodj yow jàngalekat nga waroo am chaîne YouTube kon nañ bàyyi seen caaxaan ay waa këram nekk ci njàkkare ñoom ñii leen nee nañ Modou Ndiaye. lam leen doon jëriñ bari na lool. ku bëgg famille la maanaam depuis mu dem ba léegi sax am na ñoo xamante ne bii si famille lekku ñu naanuñu parce que bu leen joxee sax te gisuñu ko duñ mun lekk donc lu ñu mun def dimbali ko. mu delloo si ci njabootam loolu rek la ñaan bëggut bu bëggut dàll bëggul dara bu liggéeyee bu ñëwee na defal fameem defal rakki fameem man de dogu naa ci jëmm sëñ Fallou lu man ñetti at man ko jëlee ba naga de lekkuma naanuma ndax fam ma taxaw kenn taxaw ma fa kon dal ko yàpp jël ko ñun nag lekkatunu naanatunu muy jarbaatam muy magam muy nijaayam muy tàntaam na du dimbali ngir yàlla génneel nu Mamadou Ndiaye ñoom ñi leen nag ñëpp la ñu doon naqaru rek moom moo di anam wi nga xam ne téye nañ ko moo du Ndiaye ak tuuma yi nga xam ne lan nañ ko ci ndoddam nee nañ duñ ko nangu benn yoon te ab point de presse la ñu njëkkee to bu ni mel amul saafara dinañ génn ca mbedd ma